ca di leen bëggee bu baax a baax di am mbégte ak contentement di jano génn chaque jour comme ni ma ko waxee donc lañ koy def daan toog waxtaan ak champion bu nekk ñu ngi fii nag jàmm gën ku ne nag di nga wax champion bu mel ni Siteu ne Lamsaar ne Mama Lamine tudd mbëri ba su ma limee damay juum ñu toog nga xam ne nag mooy Mama Lamine dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu internet yi ñu waxtaan ak moom Mama maa ngi lay nuyu waaw soxna si maa lay fay di wax on jubila bismillah inna wala yàlla jërëjëf borom Touba ñooy sant yàlla bu baax di julli ci yonentam bu tedd bi di gërëm suñu ñaari waajur sant suñu sëriñ si Abdourahmane Mbacke yal na ko fi yàlla bàyyi mu yàgg fi loolu tànd ak wér di nuyu Baye Sidi Mbacke borom Thiamaguène borom Sika Mbaaw di nuyu suñu Abdou Karim Mbacke mu suñu Fallou di nuyu Baye Mouride Mbaye di nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp di nuyu waa Thiamaguène waa Sika Mbaaw ñëpp ñëpp ñëpp fu ne ñu ngi lay safoo di la tiitaloo jaajëf di ko nuyu baax waa fekkoon nag fii nii mu toog tey nag la woon di ko ñaanal yàlla yàlla yërëm ko te xaare ko aljana fi mu nekk nii gënal ko fi mu jóge te ñun ñii ñi dund lu baax a baax mun koo ñaanal chaque année mu daal demee nii ku xam Fodé nag xam ne Fodé ku sori woon la ci lamsaar ku sori woon la ci Siteu Mama Lamine ñoom mbëri yëpp di ko jaale wat bu baax a baax ak làmb yëpp Mama Lamine sa combat fan nga toll fu mu ne nii yàgg Garga waaw di delluwaat ci li nga wax rek muy Fodé yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko aljana waaw yal na ko yàlla yërëm te xaar àjjana mooy borom bis bi la onze waaw bés bi mooy la at mooy mooy mooy mooy si at quoi bi mu gaañook léegi kon ñu ngi koy ñaana yàlla suñu borom xaar waa waaw sama combat bi nga wax nag comme man ak Garga 2 fi ci tolloon tamit mooy dañ doon waajal bëri tey la woon tey booy xool mais bon ba léegi amuñu si lu ñu leer moo waral xëy na tax nag ñu toog ba heure bi sax nga gis ñu fi mais heure bi waroon a fekk ñu bëri mën a gargane lan moo lan moo waral loolu. ci ah. promoteur bi la ci CNG bi la wala ci yow la. non ci promoteur bi la parce que promoteur moo jàpp datam le 11. comprendre mhm. ba heure seen contrat fa mu mhm. gisoo ko déggoo ko yow naka ngay def. toog xanaa di waajal beneen rek. promoteur bu paree pour tëgg sama ko waa pare naa pour bëreel la. pare nga pour bëreel keneen ku dul garga mhm. ak garga 2 keneen ku mën mais garga boo gisee lu tax ma gën a bëgg a moom mooy dañ doon waajal combat ma am blessure ñëpp naan damaa daw. Mhm. benn loolu moo tax mu bëgg a beneen bi mooy ñu ne mu doole mu mën looloo tax mu bëre moom. waaw loolu laa bëgg quoi bu bu ma gënee bëre Garga 2 rek loolu si la bokk. maanaam bañoo bëre Garga 2 maanaam na nga amaat beneen contrat ndax contrat bi nga. ok da nga ko ndar képp fi mu ne nii voilà noonu la demee. Aïcha barke Demba Ndiaye 5 décembre si te bëre war a bëri ak Papa Sow li ci xew-xew ci ba mu amee yoroon nga yëg en tant que mbër. ah rafetlu wuñ la ko de wax dëgg yàlla képp kuy sénégalais nekk si citoyen bokk si dëkk bi rafetlu woo ko mais man chaque jour damay wax rek lu tax ngay defar wala lu tax ngay yàq loolu yow sa propre moyen yaa xam àdduna li am solo mooy tey ji dëgg bu amee nañ ko jox ki moom dëgg mhm. tooñ bu amee nañ ko jox ki moom tooñ mhm. waaw ndax boole ko nekk ci combat préparé ko pendant ay trois ans mhm. comprendre benn ngoon bu ndaw affaire bu ndaw yàqu ñu pare waxuñu si leen dul wax ju ñaaw te wax ju ñaaw wax dëgg yàlla waaw jiwul fenn fu mu dëkk rek fa la ca saanoo waaw te am na loo xamante ni kenn du ko doomu gor voilà ci noonu nag ñu dégg ci coow lu bari ñu naan sanctionné nañ Siteu aj nañ Siteu promoteur dafa bëgg ñu bëriwaat yow ci sa gis-gis en tant que proche du Siteu xaritu Siteu naka nga gisee loolu. ñu ko defee teguñu ko fenn CNG loolu ñu def noonu teguñu ko fenn waaw teguñu ko fenn Pape Abdou Fall ak CNG laay wax ñoom laay dal seen kaw ñoom coow li bu amee sax mun buñ ci génnee Papa Sow génne si ñëpp ñoom fët bi am ñoom la parce que ñoom ñoo jël ñaari batteur ku ne ñu teg la la warul teg mais buñ defoon lu ñu war a def amaana li yëpp du am tëggkat bi ñu aj mbër bi ñu dagg xaalisam nangu wuñ ko jox reliquat di ko utal beneen date pour lan bëre mais noonu nañ xool nañ ñoom xanaa ñoom dañoo yaakaar ni ñoom amuñu ay njaboot njaboot la ay dañoo maanaam dañoo am ay njaboot lu bari topp sunu ginnaaw kon am na yoo xamante ni boo koy def day ci xalaataat bu baax ndax li mu def tegu ko fen fen fenn wallaahi bu ñu waxee dëgg rek te yàlla tax nit ku nekk nag yaa xam dëgg di ko wax yaa xam fen di ko wax waaye wax dëgg yàlla li président bi def bira seen xaw ma rafetluwuñ ko dara dara dara. wallaahi dañ ko ñaawlu ba fu ñaawlu yem. waaw parce que mbëri mënuñu daj coono bi ñu toj yow nga ñëw tamit bëgg a réaliser nii quoi. waaw Pape Abdou Fall tamit man it nawloo moo ko ci dara quoi. parce que hmm? kooku du gor. kooku Siteu bëri naag fii ba kii guy gi ñu toj bopp bi. wallaahi Siteu bu ñu neexoon ne Siteu du bëri dañuy yàq làmb ji. dañ koy yàq mais moom tey bu xalaatoon foofu kon amaana tey duñ yegg fii. parce que nit ku nekk lii nga mënal sa ñu yegg ci benn bis rek. ngeen di sëvante di jàppalante te yàlla tax. mais promoteurs yi boo bëggee dégg-dégg jàppale wuñ mbëri mbëri yi ñoo am comparatif di ànd ak promoteurs te yàlla rek tax. moom li mu jàpp ne mooy maanaam kii di Siteu Papa Sow bëre la signé ak ñoom te gisul bëre te tant gisul bëre. maanaam ñoom contrat yow gisoo bëre léegi nga dagg perper vie ak jël xaalis biir yi ak sponsor yëpp lekk. waaw léegi loolu ban rendement la am yow kay bu fekkoon da nga jël xaalis bi nga jaay woon billet ah? nga joxaat ko ñi dëggoon billet non amul problème sponsor bi nga delloo ko xaalisam amul problème mais yow nga boole lépp lekk ba pare da ngay jàppaat dat Papa Sow ak Siteu seen contrat jeex na képp kuy tëggaat combat Papa Sow Siteu contrat bu bees ngay taxawal. ngay taxawal waxaale ñoom fay leen xaalis ñu préparé bëreel la. coow loolu daal di jub ñi nga xam te ni dañoo ànd Siteu mu naqari mu naqari loolu yow en que jeune te xam nga jeune bu meree mën na def loo xam ne sax waru ko ne wala Siteu yónniwu leen ko en que jeune ban message ngay lancé supporter du Siteu yëpp non képp ku ciy dem ne demee ci ak dal rek te xam ne lii yëpp day jeex waaw lii yëpp day jeex li ñu war a lijjanti la te ñi ko war a lijjanti ñu ngi koy lijjanti comprendre képp koo xam ne da ciy wax na ci xam lu muy wax képp xam da ciy def na ci xam lu muy def mhm. waaw parce que instant bii nii naxtaan rek a ci am mhm. mais Papa Abdou Fall moom moom na xam ni moom lekk na xaalis téye na xaalis boo xam ne dina ko lekk te moo xam nag fa koy fayee mm-hmm. mais si de reliquat am dina ko jox ci nii baa naa mm-hmm. waaw loolu moom bu jëboo mu def ci boppam buy tëdd di nelaw na ko xalaat mm-hmm. fu muy dem na ko xalaat a pare nañ sax ñun ñun ñun pour bàyyi sunu bàyyi sax bàyyi sax làmb ndax loolu barke maam Serafal pour reliquat bi rek kese jaral nañu lu ne mais dinañu jox suñu xaalis si nii baa ci naa gis nañ seen jàpp na reliquat bi doo ko jot tant que bëree woo pare yéen lan ngeen Papa Sow accident de trois ans wala la trois ans lañ préparé combat en fait. Mhm. tey jii yàlla def ba ñëw benn affaire bu ndaw leen yàqal. Mhm. ah mais tey jii nañ xool nu mu gën a rafetee rek ñu def ko. Mhm. mais contrat bu duré trois ans nga bëgg ko yàqaat bëgg ko tëggaat. promoteur bi jël xaalisam lépp boole dugal ci poosam. loolu rafetul quoi. wallaahi boppam la fi nekkal quoi te du loolu. ñun ñëpp ñoo far. mais am na yoo xamante ni boo ko defeere rek dañ naan yow da ngay fëq jëf quoi. te loolu baaxul. mu ngi noonu nag temps bi ñu xawoon may moo ñu xaw moo ñu xaw a xoj tuuti. ban message ngay lancé balaa ngay tëj. waaw xanaa di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm waa ak lu làmb bu baax a baax. comprendre di gërëm ñi nga xamante ni sonn nañ ci combat bi waa gàmbi gars jàpp nañ ci bu baax a baax a baax. et ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm. di siyaar suma xarit bi mu toogal muy Baye Sall. moom gàmbi la jógee combat bi ko fi andi woon quoi. mais combat bi jeex na day waajal ñibbi léegi. di nuyu moromam yu fa nekk ay ñoom Oboy. Eh, Malick waa Santhia ba ñëpp kër sëriñ ñëpp ñu leen sant bu baax di leen gërëm mm-hmm. yee di gërëm nag suma benn xarit boo xam ni papi booy la ko mm-hmm. mu ngi ba Amérique maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di gërëm Baye Ndiaye Aziz Ndiaye mm-hmm. Wali Seck le grand chanteur du peuple chanteur du peuple waaw le grand chanteur du peuple Faram Marème waaw gis nga moom moo ñu ko jalis rek ñu tëmbak ko moo noonu demee waaw te nag ñu ngi koy ñaanal jàmm ca kaw ca kanam bu ragal dara nous te derrière toi waaw yàlla jeunesse la àndal lépp lu muy def jeunesse la koy boole bëre xale bëre xale ah waxuma loolu damaa juum damaa juum waxuma loolu. kon Papa Sow dégg nga eh, ma dugal juum. loo waxati. da ngaa Wally Seck daal laa xaw nee naa ko woy xale doole xale yàlla xale la àndal Wally Seck. neel Papa Sow mag la Papa Sow ma dugal de sax gaa xam ne jabaram sax xam ne daa màgget. soxnaam bi mu tàgg sax xam ne Papa Sow sama jëkkër bi daa màgget li mu mënoon mënatu ko li ko dese si laam bëreetul loolu kese la rek mais leen daal li daal la ko wax mooy Siteu du mbëru coroxo coroxo Siteu yàllaa ko teg askan bi am fuñ ko teg nit ñi bëgg ko mu nekk ci seen xol kon nag fu mu nekk gars dañ ciy nekk wax yi nag ak yooyu noonu faxul suñu bët te yóbbuwuñ fenn Siteu bu xewlawaatoon tey tey tey niñ defoon arène nationale nu ko raw lañ koy defaat waaw lu waay neex def nag loolu yow yow loolu su yëfu bopp la mais ñu sita moo ñu ñor te képp kuy wax Siteu ngir yàlla na wax lu rafet soo mënul wax lu rafet nga tëj sa gémmiñ wasalaam. sama supporter a ah, xanaa ñu waajalaat rek préparé waat sama kër sa ngi ni dañuy delluwaat rek dem liggéey waaw ut doole junniy jàmbaar yi taxaw muy Idi ak Fallou Fodo ak Fallou Parcelle ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ñoom ay jàmbaar lañ xam nga dañuy sonn ci gars yi di nuyu Serif ak Abdou sek yaa ngi dégg Abou Ndiassé Taxe ah ay Bullaal gars yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm parce que ndeysaan ñoom ñëpp ay soxna lañ yor ku ci nekk ñaari soxna nga yor. mais bi combat bi desee deux mois parce que Serigne Saliou Mbacké dañoo bàyyi seen i soxna seen i soxna dañuy mujjee ñëw ba di leen fekk si fii ñuy fanaan fi di fanaan fii di si fanaan fii ba Siteu bëre ba pare deux jours la ñuy soog a dem dellu seen famille kii mu ngi entre hôpital kii mu ngi entre hôpital te dara jaralu leen ko lu leen Siteu kon am lu leen Siteu ji lu waral tax ñuy dund loolu mhm. waaw ànd nag loo ca mënul rek jaroo nga ciy wax mhm. waaw taal bu yàlla taal sànni si mat moo gën mhm. ñu ngi leen di bu baax di leen gërëm jaajëf ayca ma maam Lamine la woon seexu yàlla yi dama koy nuyu bu baax a baax di ko béggee ah waaye di béggee am naa fi benn copain Mourou Mané sama copain mu ngi noonu si ginnaaw ah nee na bu xaayee ñor na wala. Amed Naar la Amed Naar. Amed Naar Amed Naar Kaay. Amed Naar Kaay. Amed waaw. Amed Kaay Kaay nii. boo leen jékkootee. Amed Naar nga ne lan. ma rek dagal bul xalaat sax. nga rek.